xam naa ne bi muy jël saal bi itam daa waajaloon mbooloom saal bi rek kon noo ngi santaat yàlla bu baax di julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa dafa mel ne barab boo dem rekk danga fekk ñetti barab yi ñoom fees nañu dëkk boo dem da fekk armeel ya fees da fekk kaso ya fees danga fekk hôpital ya fees waaye teewul ñi ngi dalal ñetti barab yooyu ma wax bis bu set ñi ngi dalal ay gan armeel yaa ngi dalal bis bu set ay gan kaso yaa ngi dalal bis bu set ay gan hôpital yaa ngi dalal bis bu set ay gan kon ku ci yàlla booleegul war ngaa sant yàlla te góorgóorlu kon noo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala dafa mel ne noyyi gu nit noyyi rek mu xëcc ko mu ñëw ak mu delloo ko mu génn bu ci nekk min niamillaahi mi ngi bokk ci xéewali suñu borom yi ndax ak non bu nekkoon ci loxol doomu aadama mu koy utal facture kon danga gis koo xam ne danañ xëy kuppe ay noyem wa in tawaddu ni'matallahi laa tuxsuuha noo ngi julli ci sëydu awwalin wal axirin sayyiduna muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama yonent boobu nga xam ne sunu boroom dëxal na ne du yërëm kenn du jéggal kenn bate ne dangaa toppe yonent boobu qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni la wax waxut sax fattabi'u sabili waxut fattabi'u sunnati waaye noon gi daa sës yaa gi fattabi'uuni la wax bi muy wax ñi ko gëm sax aminu billahi wa rasulihi la ci teg bi muy wax ñi ko weddi innahum kafaru billahi wa rasulihi la ci teg bi muy wax ñi ko topp wa man yutti wa rasulahu la ci teg ngeen ngeen jéggal nu tuuti dama bëgg ñu déglu ma walla ma déglu leen rek lu ci ne war lu mën a nekk la bi muy wax ñi ko mooy wa man yaxsillaaha wa rasulahu la ci teg léeg sax nga gis demir joo xam joo xam ne doo xam yàlla ak yonte bi ku ko ci moom lu mel ne wallaahu wa rasulu ahaqu an yurduhu fi mu ne demir jooju doo xam ci yàlla la dellu doo xam ci yonent bi la dellu bi muy wax ñiy jaayanteeg moom buñ ñëwee tàllal seen loxo yonent bi jël loxoom di teg ci seen kaw loxo suñ boroom dane ko sa loxo boobu ngay teg ci sa loxo seen kaw loxo du sa loxo sama loxo inna lasina yu bàyyi xoonaka waxut ka annama innama la wax innama yu bàyyi xoona allaaha ay di aydihim mu wax yonent bi ne ko waxal ne waxal mbindeef yi ne leen kenn ci ñoom du man nangu ak jullitam ba te yow sallallahu alayhi wa sallama da koo gënal ndeyam ak baayam ak mboolem mbindeef yeeg àdduna ak mag li ci biiram lépp mu ne laa yuminu ahadukum hatta ahabba ilayya min waladihi wa walidi wa naasi ajmain kon noo ngi julli ci yonante boobu alayhi salaatu wasalaam su amee ku ko desee xam moom nun doomu aadama yi la waaye ab rëbbu dem na ca àll ba rey ba jàpp am mbët rey ko gàddu ko di dox waaw mbëtt gis ab géew ne waaw ku nekk fee ñu ne ko Moustapha alayhi salaatu wasalaam moo fa nekk di woo nit ñi ci yàlla rëbu bi agsi tekki mbëtt mi ni mu ko gàddoo sànni ko ci géew bi ne ko man duma la gëm ba te mbëtt mii dalaa gëm ba noppi yonent bi ne ko yaa dab mbëtt mu ne ko labbayka yaa sëynu man waa faa yow mal xiyaam maa ngi lay wuy yow mi nga xam ne yaay taaru ku dajeeg yow bis penc mu ne ko mbët man ana man may kan mu ne ko anta rasulu rabbul alamin qad aflaha man sadaxaka waaye wa qad xaaba man kasabaka ne ko yow yaay yon yaay yonent bi ku la topp texe waaye ku la texe texee moo tax sëriñ Tuubaa di wax naan kalaamu dabbin qad ata fiiha bi nassin sabata aninu jisin qad ata mujizatal mukrami ba ci mbëtt sax mën ngaa wax ne am na ruu waaye li amul ruu dañoo gëm gëm na yont bi kon nun doomu aadama nu nuy def gis nga minbar yi ngay fekk ci jumaa imaam di ci yéeg ajjuma buy xutba ku ne xam ne ni amul ruu waaye cosaanul minbar lu mu doonoon ak ëkk ëkk ak ku tàndarma goo xam ne dagg nañu ko ba mu dee yonte bi ci la daan yéeg buy xutba benn soxna moo tax jigéen ñi ñoo am taxawaay ci lislaam la minbar yi ngay gis xalaat bi naa ko joxe ak jigéen moo ne man de dem naa ci barab gis kilifa ya bu ñuy wax dañuy liggéey lu mel nii misaal minbar bi ñu liggéeyee jumaa ji ci madinatu a ñu defal ko minbar ñu daldi gas ak gi génne ko sànni ci biti jërëjëf yàlla ko yàlla fay nu gis bi ñu gasee ak gi génne ko sànni waxtu ak juma wi yont bi yéeg ci kaw minbar bi ak gi amul ru waaye dafa jooy ba ñuy dégg kàddoom sëriñ tubaa nee na wal jisu qad min shawqin wa min ashafin xaniinu sakla zajaha faqdu amwaati nee na ëkk gi day jooy seyxul xadiim wal mu ne ëkk gi qad anna mi ngi onk min shawqin ngir cofeel wa min ashafin ak njàqare xaniinu sakla onk jigéen joo xam ne dafa am doomam mu faatu na mu koy jooyee noonu la akk gi doon jooyee yont bi ne andi leen ma akk gi dem leen andi gi ñépp ñuy dégg akk gi jooy yont bi dafa dara akk gi laxasu ko mel ne ku gis soppeem boo xam ne kenn xamul kan la ko gëj a gis akk gi ne tekk te nee na alayhi salaatu wasalaam su ma ko darutoon noonu ma ko dare nee na ëkk gi dootu noppi ba yow mal xiyam mu ne ëkk gi tànnal tànnal benn nga doonaat ak tàndarma guy meññ jullit ñi di la jariñoo wala nga doon ëllëg ak tàndarma ci àjjana ëkk gi ne ko tànn naa àjjana ci àdduna yonent bi ne nañu gas denc ëkk gi ni ñuy denc doomu aadama waaw koo xam ne ak ëkk sopp gum ko sopp ba jooy mooy sabab ak texem kon doomu aadama mi ko gënal nag yonent bi moo tax suñ boroom moo moom lépp waaye nit rek la ciy tànn naan maliki naasi naan ilaahi naasi maay buurub nit ñi maa nit ñi te moom moom ñëpp waaye Moustapha ko ci ñor ndax lim doon nit gis nga bu yont bi nekkoon jinne wala mu nekk malaaka kon malikil malaayika ngay gis waaye li mu nekk ci naasi alayhi salaatu wasalaam kon noo ngi julli ci yonent boobu waaye nag sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Touba moomu. Cheikh Ibrahima Diop yi dane ko antal mbakiyul lasi lawlaaka ma sharibat qulubuna min buhuri l isqi anhaara dane ko yow Cheikhul Xadim sunu xol yi buy naañ ci géeju sopp yàlla bëddatam ci ay dex yu bari xetu yàlla dinu xeeñ bañ koy bannamte ko sëriñ bi yow moom ci boppam wax na ne nun taalibe yi aju ci moom bu ñu aju wutoon ci moom nee na doonte dañuy yendoo woor di fanaanee nafila bu nu faatoo donte daañu dem àjjana danañ jaar sawara ba noppi i'lam bi anna allasina taallaqu biya law laa taalluquhum biya la daxaloo naara baada mawtihim walaw muddatan xalil qabla duxulihim aljannatu allati mu almuttaqun kon noo ngi sant noo ngi sant cheikhul xadim am na ko masa toog ci moom ne ko mbàkke gannaaw bu yàlla ak yoneen bi wéyee sëriñ bi ne ko déglu mu ne teg sëriñ bi ne ko yàlla ak yoneen bi bu ñu wéyee ahmadu wéy yàlla ak yoneen bi duñ wéy sëriñ tubaa di fa des kon noo ngi sant sëriñ tubaa xaadimul rasul sëriñ ahmadou noo ngi lay ndokkeel bu baax ci bis bi yow bis bi xam nga ne waxtaan rek boolewunu ak yow jàpp nga nu ci fànn yu bari waaye noo ngi lay jaajëfal bu baax ci sa bëgg lu baax ak yu rafet yii nga fi feeñal dama wax ne zillatu rahim gi am ci jataay bi rek muy bokk gi jaroon na def jataay bi ndax ak bokk suñ borom bi mu ko bindee da koo aj ci kawaaras lu yàlla bind ba noppi aj ko nag ci kawaaras doy na ak fonkel wàccewu ko ci suuf waaye ci kawaaras la ko aj ak bokk nekk fa di jaayu sun boroom digal ko ne ko dama lay wàcc ci àdduna mu ne ko àdduna warante dafee bari damay ragal bu ñu ma wàccee boo ma wàccee ñu dog ma sun boroom subhaanahu wa taala ne ko ndax du la doy ci ku la jokk ma jokk ko waaye ku la dog ma dog ak bokk ne ko loolu doy na ma mu ne ko kon wàccal moo tax ak bokk daa wàcc ci condition bi mu wàccee nag sun boroom digal nu nun jullit ñi ñu wattu ko ci ak bokk wa taqullaha allazi tazaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana aleykum raqiba yonent bi sa sallam nee na xool sa mbokk bëtu cofeel moo gën nga dem makkatal mukarrama ca jumaam joojee di fa julli atum lëmmu ren ba déwén moo tax nga xam ne kon ak bokk alali suñ boroom la gis nañu nag ci jataay bi doxu bokk gi ci am kon sëñ Ahmadou lool rek jaroon na jataay bi am kon noo ngi ñaanal bu baax sëriñ Maxtaar mi nga xam ne mooy nekk xalifa sëñ Jéeri di ñaan suñ borom yàggal ko te wéral waaye ñaanal ko sëriñ Bamba mi nga xam ne moo nekk xalifa sëñ Ahmadou Tasrif sa maam ju tedd jooju waaye itam ñaanal ko sa waajur wi nga xam ne bis bii ni nga ko waxee lépp mooma ca tàmbali gi ba ca mujj gi te mooy sëriñ Màmma noo ngi ndokkeel ñëpp di yi ñëpp ku ne xam ne ne jataay bi mënta gudd waaye ñu xam ne ki ñu fi dajale di sa njéeri waadaan nanu xam ne sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko xamleel boppam ku sëriñ Tuubaa xamle nag nëbbootoo sëñ Jéeri sëñ Touba moo wax sëriñ Bamba Sougou ak sëñ Touba ak sëñ Ahmad Tasrif ne leen ndaxam ndaxam seen bàyyi góor la ndax nitu yàlla benn nitu yàlla du dem ci pays suñ borom yi te fekku fa karbati sëñ Jéeri waa daal boo dem pays yàlla yi pays boo ci dem fekk fa ay karbatam gëm ko sëriñ jiiri yàlla mu fal ko fii buur duniya wax naa sama am mës la ci anguur jaaxal na fi gaay def na fi kiraama amadu tasrif ku ñëpp xam la bam la tewi xiyaama xol ba daaleer buy wax dafay yërëm loo sa maam wumpaliwul dara te mës la xam lu kenn mës ñaan sa maam ba mu sa lu kenn mësu ko ñaax ci yàlla ka ka jom te yàlla kan xarit ba joxe yëfam di ak koy xéewalam di ak jiiri képp ku dib sa tëm mbaalu jur del sant de noo mën a mel faw nga mujj doonub sant képp ku dib sa tëm mbaalu jur del sant samaam nu mën a mel faa mu mujj doonub sant yàlla yebal jibril mu fal samaam fii buur duniyaa waxraa siix jéeri mës la jug ci anguur jaaxal na fi gaay def na fi kiraama ku ñépp xam la bam laa tewi xiyaama sëriñ jéeri xol ba daa buy wax dafa yërëm lu samaam wumpulewul dara te xam lu kenn mësu ko ñaan mu kumbam sëndam loo kenn mësu ko ñaxti yàlla kii ko jomlu tasrif ahmadu tasrif maa ngi bëgg xuus te sa baay ba dellu si naa ceew nga rey sa baar ba waaye may way xamal ne yaay dalil jaa yàlla la yàlla may xënd joxel joxel joxel joxel temps dafa jeex salle bi dix minutes moo ci des sëñ euh, Mor tënk rek sëñ Amadou Tasrif ñaanal mbooloo mi jërëjëf daa mel ne luy jame lu ne cat laa ci gën a garaaw moo tax yont bi saa sala wax ne njariñ lu ne man ca mujj ga sëñ Amadou noo ngi ñaan bis bi nga yàgg koo taxawe wax dëgg yàlla jàmbaar nga lu bokk ci sa njéeri walla sax lislaam laay wax duma wax sax yoonu murit wax dëgg yàlla ameel nañ la ak cant bu baax a baax ndax liggéey bii du liggéey bu woyof noo ngi ñaan su borom gën laa dëgëral gën laa taxaw bu baax saaxiran wa baatinan noo ngi jaajëfal ñëpp sëñ Cheikh Mbacke Mbuub jërëjëf gis nañ taxawaay bu baax yow dama laa sopp noo ngi lay ñaanal bu baax ndax yéene ji àgg na maa ngi siyaare sama jigéen bële siyaare ñépp nag sëñ Amadou bala maa daaneel ma wax tuuti ci soxna Bali ndax barab bi nuru na lu wet lu wéet waaye lu wettiliku la ndax ñi ngi koy jël bi ma toogee fii dafa jaar ci sëñ Modou Mamoun Lo Gaydeel mu ñëw ne ma soxna si nee na bis bii bisam la dana koy ànd ak yow ci biir ak ci biti fondation bi nga xam ne itam cër bi nga ko ci joxit mu yabaloon sëñ jiili ak ñi mu àndal ñëpp te soxna Bali wax naa ne morit yëpp amel nañ ko njukkal ndax wet gim ñu féetee ci sëñ Muntaxa ñun ñëpp dañoo waroon a laxasaa yu nekk jeg kon noo ngi moom itam mi ngi lay sant bu baax di wax ne yow a ah, da nga koo def waajur da nga koo def sëriñ lépp loo nekk mu ànd ci ak yow kon noo ngi santaat bu baax ndax ku ne xam na ne salle bi luñ limité la di siyaare bu baax nag sëriñ Cheikh sama xarit bii di sama rakk di sama mbokku daara di docteur Ahmadou Bamba Koroya mii toog ci sama wet nga xam ne su ma jógee njaareem ñëw fii day fàggu barab bi ma nekk di ma fa fekk ak lépp di jël otoom fu ma jëm mu bàyyi ay yitteem léeg-léeg sax mu soññ ma ci barab te du yàkkamti du soññe maa ngi ñaan sun boroom ci barkeb Sëñ Tuubaa ak barkeb sama sang bi Sëriñ Mor Mbay Sy mi nga xam ne moo nu boole sun boroom gën a koo yëkkati te jox ko ay pharmacie yu yaatu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 aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ngeen ànd ko ak moom saal bi mel nii mu mel nee na xolam sedd na da leen di bàyyi ak maam Serigne Cheikh Diéry soxla su fi waaye andi yàlla na ko Cheikh Diéry faj salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu amin amin amin foo nekk na toral sama waa jàggoore te yaa ma fonk maa ngi yow bis bi Italie maa ngi bi Espagne maa ngi yow bis bi Sénégal yàlla ma yàlla fay noo ko def Italie mu jiital ma ca kanam ni ma jiitale tey moo du mbuub yàlla yàlla guddal sa fan yàqoo ci dara amin amin yàlla bàyyi nag sa wajur sëriñ mamma amin sugu fara